nga xool sa musculature xool également son visage le xam machallah, il a une bonne hygiène de vie il a de la force oh amène le lu bëgg loolu ce sont deux athlètes bien préparés deux champions l'expérience de Eumeu la jeunesse de Sa Thiès Eumeu beaucoup de ci nga que ne moo pas de eh, suñu papa Dans deux fois Magouki, beaucoup de gens

En effet, ce combat bu bàyyi la ngeen nuyoo soog a ñëw ci combat bi l'importance de ce combat pour ta carrière actuellement. waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ci tegu sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waa kii mag di ñaanal Sénégal bi yàlla fi jàmm yàgg di nuyu sama mbokk Pikine waa yëpp waa Pikine fi mu juddoo yàlla ko màggee fa. di nuyu mbaaw gu ma dëkk di nuyu sama mbokku séeréer yi bu baax a baax baax di nuyu tamit si suñu wàllu yaay yi nuyu sama baax a baax baax di yokk di ñaanal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di nuyu nag suma rakk tamit Sa Thiès di nuyu tamit champion yi fi nekk ñëpp ah ku fi nekk ci turam ak santam Aziz ñu baax waaw jàmbaar nga di nuyu Baye di nuyu Moussa eh, maa ngi nuyu. Moussa Sy Bambar ñu ngi nuyu bu baax Aliou ah bu Grand Dakar di nuyu Lengay Moussa Sy waaw bàyyi ma ànd ak yëpp ñoom la teel a gars maa ngi nuyu suma rakk yi ah Bambar ñu ngi nuyu bu baax. CPS ñu bàyyi la nga nuyoo yow tamit balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw gannaaw nga ñu ngi sant daal ñu ngi sant yàlla baax di julli ci di sant suñu ñaari waajur ñu jite ci kàddu ñu génnaat na ñëpp yàlla yàlla yërëm xaale ak gën a amiin ñu tëddoo bu taw yàlla yëkkati leen ñu taw ci ginnaaw taw ci leen kanam di nuyu sama adversaire di nuyu Baye promoteur bi Aziz ak euh, ñi ci nekk ñëpp ku leen di di nuyu sama mbokku mbër yëpp aussi di nuyu comme ni ko waxee rek euh, suñu bopp nga xamante ne mooy sama soore Baye. menace waaw kon nag ñu ngi leen di euh, encouragé baax di waxtaan bi gën koy jàpp parce que bi tamit lii lañ soxla waaw di nuyu sama na seen di ko ñaanal jàmm aussi ñu dem ci le yàlla may ma ci ndam ci daa benn daa benn message bu bëgg a jàllale waaw. voilà maa ngi nuyu tamit aussi Khady Kraza bu baax di wax gars yi ñu waajal le huit mars bi. waaw le huit mars xam nga. parce que ñu def leen jigéen ñi. exactement exactement. waaw xam nga di nuyu tamit aussi station bu ma def ma Khady Kraza bu xamat. bien sûr waaw social xamat ah, social. ñu koy ñu ngi koy dóoree ci UASO ci lay jaay bi le 8 mars le 8 mars di jàppale exactement waaw mooy at bu nekk le ko dooree ñu am problème mu rein ak ñu am problème mu dinañ am problème mu waaw cancer de sein waaw xam nga man def ay ravage yu bari eh, exemple ñoo dëgg lañu waaw parce que ñoo yaay le mot grand frère petit frère mi ngi dox ba tey nii nii nii ba nii nii à presque un mois et du combat ba léegi le mot grand frère le mot petit frère ba léegi mi ngi ñëw te am na ci ñoo xam ne sax ça mal à leur oreille waaw mag ma xaw a xaw ma la quoi. waaw parce te moom laay mos a doon te su ma rakk lay doon te sama rakk lay mos a doon. waaye sa adversaire yàq sa adversaire lay doon. waaw loolu la quoi lamb la sport la doon la fair play quoi. alors am nga ko fi combat bu nekk bu nekk bëre nga champion yi ci gën a dara yépp daje nga ak ñoom tey bii nga war a ak Sa Thiès est bi nga amoon bi ñuy bëre ak madame Balla Gaye moom nga am ba léegi est-ce que motivation bi moom nga am ba léegi est-ce que hargne ak détermination ak fugg ba nga amoon dañuy bëre ak Bombardier moom nga am de léegi dañuy bëre ak Lac de Guiers est-ce que rage de vaincre boobu noonu dama la fekkee France man ak yow ñu taxawaalu fa nga xam ne fa la Paris Saint-Germain di entraîner man ak yow ñu dem nga nekk ci ay loxo may gis yow rage de vaincre bu extraordinaire est-ce que motivation boobu moom la ëmb am ba léegi est-ce que boobu moom la am léegi est-ce que rage boobu moom la am ba léegi du jàkkaarloo ak saa kees yi. waaw léegi waaw doomu doon bi ngeen ñëw waaw loolu léegi man séeréer laa ak joolaa comprendre la mais léegi merci. ça. nee na day ñëw toujours sa moom. waaw loolu la yàlla dogal ah du mu sa dañ waaw l'essentiel daal mu siggee daal ku mën ta morom bon ku mën ta morom daal mais maa ngi ñaan yàlla jëli bi yëpp nekk sama kaw parce que aw ma doyaa maa ngi ko dara soto combat bi lan doon laa am droit ñëw bëre fekk ko daal seeti leneen mala moom ma ànd ak yàlla man yàlla rek laa àndal li ma yàlla jëngal ma jël waaye ndam laa ci jël combat bi dafa am lu mu représenté également ci yow parce que au de Sathiès mi nga xam ne dafa am plan de carrière am lu mu war a bind ci am na lu xam ne kii def na ko sama defaat ko ko est-ce que loolu bokk na li nga war a bëriwaat est-ce que bokk na li nga war a bëriwaale dugg gi mu dugg géejewaay daan fa ñaari war a jël yow seen devant un médecin. li euh, li passé yëpp dañ ko bàyyi ci loxo yenu yi ngeen duma ma ko bëriwaale lo yenu sama gëm-gëm lay bëriwaale parce que ni ko góorgóorlu ba daan ko rek ñu ngi ko tapé man kenn duma ma sama bobu duma ko charge lo xamni dañu am pression ngay bañ ci laaj joomi da laaj bi mo ko tax sama xajal fa rek man xel mu dal lay demee ma ngi liggéey ma nga ndax sama bokk ma lay sama sax ay ñu ñu ci ay ñu muy tiit ragal yàlla rek la gëm yalla la yaakaar lepp lu ma mën ngir am ci ndam dina ko jëm dina ko def sama mag la mënu ma ko mënu ma mënu ma ci dara daf ma njëkk a judd su ma ko njëkk a juddal daf la ma xoolee mm-hmm. ba arbitre sifflé nag diggante mag ak rakk lu ñu koy dàq pour foofu ñu koy dàq ay mbokk ak xatar ba taxawal ak kat yeneen ak yooyu yaa ngi gën a xam ndax mag bu saay saay muy suñu la xam li ko booleel ci kaw <laughs> bi nga ñu bu arbitre génne seen diggante dinañ def la ndemu ku ko xam xam na du combat bi merci bi am nee na du combat bi merci bi waaw loolu mu wax moom amateur engagement la bu ñu jël non saa kees yi ku la xam ne ba barke si léegi nga taw waaw loolu la combat bi tëj xam nga man ban problème laa am xam nga fan yee dafa am lamb bi fi amoon ñu tudd ci baatu combine quoi combine lamb bi est-ce que lamb bi ñuy liggéey quoi parce que man xamee ma tey Eumeu Sène xamee ma saa kees sama mag la buñ ma changé liiru li ngay bañ ama seen moom lay def dëggal boppam rayanteeg Sa Thiès mais ci làmb di jëm nii actuellement neexalante beeg raayante beeg te ama seen bii la commencé woon digganteem ak Tapha Tine te dernier fes fes ba te lu fippu est-ce que tàmbali danañ ko yeggali moom ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa gis-gis mais ñi xam làmb dëgg respect ñi xam làmb xam nañu combat bi yóbbu foofu rek laa yem ñu xam làmb ñu xamul nag mën nañu wax mais ku xam ñaari mbër yi xam ni combat bi combat bi ko nekk combat der bi ok daa fonk la moom li mu wax rek laa si ñëwaat donc da ngaa yow da nga da ngay da ngay provoqué da ngay provoqué dafa bu baax a baax du benn du ñaar yow da nga koy sa comme si ko yaay ko sëñ wala yaay saafo mais li mu ñëwee baax na mais li mu ñëwee rek baax na pare na maa ngi ñaan yàlla ànd ak moom yàlla may na ndam si pare sur les plans mais man sax naa taxaw bëggul sax bàyyi bi ma fay sax man war naa taxaw bi ñu wax ñoo si commune ak sor moom wax dëgg dañ ko wax keneen mais pas ñun jërëjëf Sa Thiès est-ce que mën nañ xaar Sa Thiès bi nga xamante ni moom la ñu gisul contre rubrique Sa Thiès du bàyyi ndax dina bàyyi yoonam arbitre bi sifflé combat bi sa combat la yaa ko soxla combat bi xam nga fi mu la mën a yóbbu ci sa carrière mën nañu wax ni combat bi c'est le combat de ta de sa de ta carrière bu génnee sa diggante Eumeu Sène yaay def lépp yaay jëli parce que yaa soxla rencontre bi la bi ci des mooy Eumeu Sène est-ce que mën xaar Eumeu Sène arbitre bi sifflé ñu gis Eumeu Sène bi bëri woon ak Tapha Tine parce que bëri da nga indi Tapha Tine arbitre sifflé nga xeex nga bëri sa diggante sa Thiès wala da ngay taxaw ko parce que moom moo soti wala taxaw xaar wala Eumeu ba bëri woon ak Gris Bordeaux man daal boobu laa nam est-ce que mën nañ xaar loolu na booboo neex loolu loolu Sa Thiès nee na booboo neex est mën nañ xaar Eumeu Sène arbitre bi génn sa diggante sa nga fital jaar xeex ak xale bi xóot ak xale bi guddi toll nii saa tees ku naqari dëkkul ndax bu dee doole bi mu ngi gis bur bi mu ngi gis am na rapidité bi te moom moom yaram sàpp waaw man laaj moom lu mu laaj rek waaw toujours si la ñuy xool lu mu laaj ñu jox ko loolu ko def waaw waaw toujours si dégg nga lu ma wax lamb toujours si dafay xew fa lay xewee bu ñu ñëwee lamb ñu laaj ñu jox ko incha allah li ma gëm moo gën a neex dóor bu ma ci am bëri ma ci am gën bu maa wut ci nañ ñaa gi ma soxla loolu leer laay def déggoo ma ne dinaa ñëw ci jàmm su ma ko yàlla maye dinaa góorgóorlu dinaa def la ma daan def la ma daan def nag ba yàlla may man da a yegg ci fii su ma ko changé loolu na solo grand Lamine maa ngi leen yàlla jàmm yi ñëpp Sa Thiès yow laa jëkkee amul seen dama toog moom mu gëmloo ma ne ma li ngay def ci làmb ñu boo ko def ci jour bi mu ne arbitre nangu ko suba ci nga danga la nga daan def ci làmb nga ñëw ci kawam kenn du la ko conseillé saa kees arbitre si ne dagg na jéggi ci kaw Eumeu Sène ndax loolu luñ a xaar la. ma toog rek ñaari man ma jom fulla fayda sama papa loolu ma digal dëgg ma saa kees waaw saa li dëgg ma ne la bàyyi ñaari avance dañu war a jox yaakaar naa moom nii dafa nekk ay avance yëpp def ko yëpp suñu paree dañoo war a bëriwaat. da nga gëm ne Eumeu Sène nii bu arbitre sifflé la nga daan def bëri ñu mën ko. mën a gëm ci Eumeu Sène dina jël avance am te bëgg naa avance am damay bàyyi làmb man ko ngëm ko moom sànni du yaa suuf. say tëj ba nga may ndam nag côté boobu dama ko ciy félicité bu baax a baax mais ñàkk dama ñàkk samay meloor ñëpp maa ci gën a mën a defal wax bi li ñuy bëri yëpp kenn ku ci nekk am nga ko am am nga koo toog nga wax lu la neex ci moom mais kenn duñu ma ci bëri rek parmees loolu mooy ñu ma gëm la Sa Thiès Eumeu Sène gëmul ne. waxoon nañ ko waxoon nañ ko li nga def waxoon nañ ko sama combat yu baax. Sa Thiès Eumeu Sène mi gëmul ne li ngay def ci làmb di ko def ci kawam. mu gëm bi Sa Thiès gëm. yaa ngi jëm jàmm yaa ngi jëm jàmm rek. maa ngi ñaan yàlla maa ngi wax. ma posé question bi Eumeu Sène Eumeu Sène yaakaar naa ne yàgg nañ laa xam ci ndox bu bëri. te sànq dañoo toogoon maag yow di waxtaan ci émission nga ne ma Sa Thiès gaaw na loolu waaye melax la fi fekk Eumeu Sène li Sa Thiès daan def mbër yi arbitre Sadio séeréer na ëmmal seen doxam ci ko ëmmal seen loolu la ci amateur mën a xaar. waaw d'ailleurs li may leen di tontu rek mooy bon waxuma la ne Sa Thiès ñu leen di def ñu def gars yi loolu moom dañu waxoon. bu ko demee waaw non xamee garaawul xam nga. <laughs> waaw ñëw ci loolu rek. Bamba. waaw nit ku ko changé mën a nam moom boo ko changé loo mën a nam yaa ngi xam Sadio Deme lam def lam def bëri. non non pourtant bëri na. waaw bu bëri Sadio moom bëri na. bu Sadio defee lam daan def la non moom. xam nga mu def. fekkee ne Sadio ñëw na def lam daan def bëri seere Eumeu Sène perse Eumeu Sène ñëw seet bëri lan loolu moo fa mën a am. waaw nañ bàyyi bu sori incha allah. waaw wax si day yow. léegi nag Malick yaakaar naa ni kenn du wax Eumeu Sène wooteel kenn du wax Sadio wooteel mais ay professionnels lañu ci fànn wi ñu bokk ñu nag lii lañ ñu jàngal mooy ci fii dinañ dóor ñun li ñu jàngal Baye Ndiaye ñun li ñu jàngal mooy bu ñu bu ñu joxee lépp it kenn ku ci nekk dañ lay bàyyeek la nga am woon nañ suñu naatangoo yëpp kenn ku ci nekk jël kàddu léegi li li ci des mooy dañuy jox Malick suñu mag mu tëj mais ba laa loolu laataa loolu Eumeu Sène dina joxe kàddoom bu mujj Sa Thiès joxe kàddoom bu mujj Baye Ndiaye gërëm nañ la sant nañ la mais ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam Malick Thiam. jërëjëf ñu ngi ñëw nag au terme de ce face to face ñaari champion ñoom ñoo war a daje ñaari jàmbaar ñoom ñoo war a daje ñaar nga xam ne bi ñu fayee bés ñoom ñoo war a daje respect am na ku seen diggante parce que loolu moo leen war waaye gën naa ni ce jour là on aura un combat de